wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa général di murit maa ngi koy siyaare di ñaan suñu borom bu dund téeméeraat ak fukk am wax joo xam ni sama kër moom ma ci dugalal murit yu baax woo ma ni man nga waxee daa gis lu bari na nga ko jébbalu ndax dafa am murit yu mer te man murit rek laa ragal murit bu dëgg laa ragal moom laa bëgg moom laa ragal moom bëgg tuubal sëriñ bi tuubal sëriñ bi moo lu mel ndax taalibe bu mag bi sa mag bu baax bi nga xam ni dafa rek ko tax a jóg te tuubal sëriñ ba sëriñ bu xaadir ndax ñoo yor kàddu yoon bi ndax li ma wax ci plateau bi ñoo koy wax wane dayob sëriñ si ci réew mi xam na ni bi bi seen maam yi ràbbu réew mi kenn ci jaay maam am igiw amul ñu tabax réew ba mel nii yëngu-yëngu yu bari ma defe seen kàddu ci barke seen tolluwaay ak mbooloo mi yaakaar jël yaakaar te muy dëkk ci ñoom bu naat doo jàmm rek xew te jàmm moo baax ci Sénégal moo baax fépp am na taalibe yu baax yu ma woo waxal man wax bu tedd moo tax ma ñëw di jéggulu mbooloo mépp rawatina nag ñu gise wax ju ñu bokkut ak ni ma ko waxee ndax man néew moo fi waaye mbokki murid yi bu nee ni nga waxee baaxul dama koy defar ndax ñu ni ma ñu ko tuube baax na maa ngi siyaare tey jéggulu di ñaan sëñ Muntaxa mi nga xam ni samay seere